lewet ku nekk ci moom day mën a nëbbu am mer dara la koy naqari te kenn du ko xam beneen bi day man a jéggale day mën a jéggale lool ñi nga xam ne dañ koy def lu ko metti walla lu ko naqari walla lu ñaaw beneen bi mooy ni mu mënee jéggale kiy ñaawal jëme ci moom noonu nii lay mën a rafetalee jëme ci kiy ñaawal jëme ci moom aji lawet ji day noot bakkanam ba bakkan bi du ko ñor di mukk jëme ko ci li nga xam ne mooy mer rawatina mer di réagir ci anam boo xam ne la muy jur du baax lawet nga xam ne dangay mën a yëg bañ a lenn loo xam ne lees waroon a tawat la moo gën sax aji mer joo xam ne moom day mer waaye da koy nëbbu kon ñu gis foofu ne am na aji mer joo xam ne dana mer waaye da koy nëbbu loolu baax na lool ndax yàlla mi ngi ciy tagg ñi nga xam ne dañuy nëbb seeni mer mer ba noppi nëbb ko ku yàlla di tagg nag kenn mënut jël keneen teg ko ci kawam waaye it ki am lu muy nëbbu kon ma nga ca moom waaye léegi ki nga xam ne melul nag faf benn yoon kon kay kooku xanaa moo gën moo tax mer nekk loo xam ne lislaam da koy ŋàññi lool xaar ba ci kanam yow xaar ba ci kanam xaar vingt minutes kon mer moo gën sax nëbb mer moo gën a baax jikkoy nëbb mer aha ki nga xam ne dafa lewet moom aaji woowul di nëbb meram ndax nekku fa kon daal saa borom subhaanahu wa taala ci ak mbaaxam nañ yëg ne defal na aji lewet ji nga neen loo xam ne dana ko rawee ñu melul ne moom moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax day wax ne man kadama gayzan wa huwa qadirun ala an yunfidahu daahu allahu على رؤوس الخلائق حتى يخيره ولا حتى يخيره من الحور العين ما شاء xadis la boo xam ne abu daawuda ak tirmisi nettali nañ ko ibnu maaja it nettali na ko xadis la boo xam ne xadis bu mata bàyyi xel la mu ne képp koo xam ne day nëbbu meram te jamono ba mu koy nëbb mën noon na koo génne waaye da koo nëbb te yàlla tax yàlla daf koy yëkkati teg ko ci kaw jaam yi mu tiim leen maanaam day yokk ay dara jaam day sut ñeneen ñi nee na yàlla nag dañ di yëkkati ay kemam ba mujj sax mu tànn loo ko ci xawrul ayn yi lu ko neex tànn loo ko ci xawrul ayn yi lu ko neex ngir rek dafa mënoon a nëbb am meram nee nañ lewet màndargam tege ci yoonu àjjana la bokk na ci màndarga yi xamee ne nii kii nitu àjjana la mooy ndéewal amer mer dañoo jële ci abu darda radiallahu anhu mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa mas naa wax benn waay mas naa wax benn waay ne ko maanaam am na baal leen ma abu darda nee na am na ku ma sa dikk ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow mi yàlla yónni dullanii ala amalin yudxiluni aljanna tegtal ma jëf joo xam ne su ma ko defee man naa tàbbal àjjana yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko laa taxdab mer wala kal kon da nga tàbbee mu ne ko soo mer la bi tàbbi àjjana moo taxoon am na keneen koo xam ne bi mu dikkee laa yonent bi encore yonent bi daf ko wax ne ko laa tax dop laa tax dop laa tax dop ñetti yoon waaja dem di xalaat ne yonent bi sallallahu alayhi lan moo tax mu ne ma bul mer bul di mer bul di mer nee na ma si fekk sa gis ne mer mboolem li nga xam ne aw ay ca la mën a bawoo nit ki daal su dee mer lu ne mën na koo def mer day naqaral ak dund day jeexal xol day jaxase ay xalaat day tax ki mer jamono bu nekk dana wax loo xam ne la ko ko wax loo mer ma dong la te bu mer mi jeexee day rëccu wala mu jëf jëfin woo xam ne mer maa tax te bu jeexee mu rëccu mer sax dana tax nit bëgg a génn àdduna walla bëgg a génn dëkk wala bëgg a génn këram kon mer mbir la moo xam ne moom mooy safaanub lewet waaye lu mën a faagaagal la kon daal saxaaba bi nee na gis naa ne mer mboolem lii aw ay lépp ca lay bawoo kon képp koo xam ne bañ naa merloo yàlla moom bum di mer am na koo xam dafa mas a dikk ci sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa ne ko nan laay def ba mën a sori merum yàlla mu ne ko xanaa ngay bañ di mer rek abdurahman dafa mës a am ku dikk ci yonante bi sallallahu alayhi wa ne ko ana nan laay def ba sori merum yàlla mu ne ko xanaa ngay bañ di mer rek bul mer soo dul mer rek yàlla du la mere kon kii mer la yàlla lay mere ku dul mere yàlla da koy mere moo taxoon moom sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ne laysa shadidu bi sura mu ne jàmbaar bari doole championnage nekkul ci mën a bëre comme lu mel ne catch xeexu américain yu dof yooyu nga xam ne lu ne la ñuy di gañee mu ne loolu man ci taxul nga nekk jàmbaar waaye innama shadidu man yamliku nafsahu inda alxadab nee na dëgg-dëgg jàmbaar mooy koo xam ne su day contrôler boppam su day contrôler boppam ba du wax wala mu jëf loo xam ne ginnaaw bi mën naa am mu di ko réccu yuqaabiluni safiihu bi an akuna lahu mujiban yaziidu safaahatan fa xulman kaudin zaadahu l ixraaqu tayban woykat bi dafa wax ne dafa am benn waay ju doy waar moom ngeen wax stupid koo xam ne dafa bon jikko lool nekk nit ku tàng xam nga léeg-léeg gis ci mbedd mi koo xam ne dangay taseel moom ni dong ngeen korose mu gëdd xeeti jëfi ñu mel noonu yi nee na ab dof laa dajeel ku doy waar mu di ma attaqué rek lu bon lu ne ma wax ma ko lu ñaaw lu ne ma wax ma ko teg ci sama der bi lu ne waaye ma lànk mel na miir ne nekkul ne man maay ki koy tontu waaye nee na moom ma ngay gën a dof di gën a ñaaw làmmiñ di gën a wax lu bon waaye mu mujj mel na berin almet boo xam ne danga koy kos te yaa ngi ko sëpp ci ndox ma jël béréb almet bëgg koo kos waaye yaa ngi koy sëpp ci ndox mi ndax boo kosee dana tàkk nu muy def sëpp ko ci ndox mi ba mu tooy ne danga koy taal xam nga du tàkk mu ne noonu laa fa mel moo tax benn borom xam-xam bu mag waykat bu ñu doon wax Mahmoud Alwaariq da daan wax naan sa alzamu nafsi assafha an kulli sa alzamu nafsi assafha an kulli mudnibin wa in kathurat minhu alayya aljaraimu wa man naasu illa waxidan min thalathatin sharifun wa mashrufun wa mithlay muqaawimi fa amal wa mithli muqaawimu fa ama alladi fawqi fa acrifu qadrahu wa atbacu fihi alxaqa walxaqu laazimu wa ama alladi duni fa in qaala suntu can ijaabatihi cirdi wa in laama laaimu wa ama alladi mithli fa in zalla aw hafa tafadaltu inna al bi bil xilmi xaakimu aha mu ne danaa fexe ba ñoŋal sama bopp sama bakkan ci sellal ko walis képp koo xam ne moom nit ku bon la ku saay-saay la doonte tooñaage yi nga xam ne moom la may tooñ sax day bari lool ndax mu ne nit ñi kat ñett ñii la kenn ku nekk benn nga ci rek koo xam ne yàlla moo ko teral kooku fonk ngir ne yàllaa ko teral te ku yàlla teral ku ko jéem a wàcce da ngay torox ak koo xam ne dañ koo teral nit ñi ñoo ko jox wàccuwaay mu ne ak koo xam ne nit ko dooyee di rek nag maanaam koo xam ne dafa mel na moom daal di wàcc boppam fii mu ne ki nga xam ne nag daf maa gën a kawe dara ji day sama kilifa maanaam moom moo ma sut ki nga xam ne nee na moom moo ma sut danaa fexe ba xam gëddaam ma jox ko ko waaye nag danaa sàmm wante dëgg yi duma jeng loo duma jàdd loo duma def loo nag lool dara jaam dong laa koy rusee waaye yàlla bëgg ndax li yonente bi sallallahu alayhi wa waxoon ne laa taata li maxluqin fi maasiyati alxaaliq nit ki loo jàpp-jàpp ne moo la sut daraja du tax nag nga topp ko ci loo xam ne neexul yàlla ki nga xam ne nag yàlla daa dogal ma mel na maa ko féete ko kooku su waxee wax ju ñaaw su waxee wax ju ñaaw dégg nga mën naa ko tontu ngir ngir sofe sama honneur mën naa koo bañ a doonte dañ ma cay yedd wa amma alladi mithli fa in mu ne bu fekkee ne ki mel na man nag nga xam ne man ak moom ñoo yem daraja bu juumee nag bu juumee dama koy baal rek ndax baal gi kat dara nekku ci moo tax waykat ba ne woon ida nataxa safihu fala tujibhu fa xayru min ijaabatihi sukuutu fa xayrun min ijaabihi sukuutu Sëriñ Tuubaa lu mu rubba qawlin jawaabuhu fi sukuuti bari waa na wax yoo xam ne tontu ba ab dof ki nga xam ne dafa doy waar tàng nga xam ne buy wax day wax duy cax la di gëdd mel na kuy bëgg a jooy mel na kuy yuuxu léeg-léeg mel na kuy bëgg a wàccu mu ne su waxee ci anam boobu bu ko tontu ndax mu ne li gën tontu la mooy noppi ga mu ne noppi gaa gën tontu la sakata an safihi fa danna anni uyitu an il jawaabi wa maa uyitu mu ne nit ka daa dikk di wax man ma bañ koo tontu mu jàpp ne damaa amul lu ma ko tontu fekk déedéet am naa lu ma ko tontu de dama koo bañ a tontu rek ngir tontee ko ñàkk a tontu ngir tontee ko ñàkk a tontu uhibbu makaari makaarim al axlaaqi juhdi yi jikko yu rafet yi dama koo bëgg lool sama kemtulaay kàttan wa akrahu an aiba aw oaba wa an oaba waaye bëgguma di ayibal kenn waaye bëgguma ne ku may sikkal bëgguma sikkal kenn waaye bëgguma ku may sikkal wa asfaxu an sibaabi nnaasi xulman wa charru nnaasi man yaxwi sibaaba li sax Sëriñ Tuubaa andi na ko ci naxju mu ne danaa muñ saagawanteeg nit ñi ngir ak lewet ndax ki yées ci nit ñi mooy koo xam ne dafa bëgg ay saagaante ay saagaante ay waxante yu ñaaw ay saagaante ay gëddante ay xastante ay woote wante ay tur ñaaw ay tur yu bon yooyu yëpp baaxul dañ koy tere kon doomu aadama dafa am worma yoo xam ne ku nekk rek dañ koo war a wormaale lewet nag ay xaaj la xaaj la yoo xam ne dañ koo séddale ci juróomi xaaj juróomi xaaj yi ñu ko séddalee bi si njëkk mooy nit ku lewet koo xam ne yàlla moo ko def mu nekk bindam loolu may yàlla la nekkul ne ñépp ñoo koy am lewet gu mu lewet tax ñi koy xas lu baax rek lay wax ci ñoom ñi koy bañ da leen di bëgg ñi koy xañ da leen di jox ñiy dagg ak mbokkam da leen di jokk loolu moom mayu yàlla la nekkul na ñëpp ñoo ko am lool yi nag moom la yàlla digal yonante bi sallallahu alayhi wa ñaareel bi mooy koo xam ne dafay lewet lewetlu bëgg lewet ba far lewet dafa bëgg lewet ba far lewet nga xam ne moom moo ko bëgg rek dégg ñu ne lewet baax na muy jéem ba mujj nekk lewet nga xam ne moom moo ko defal boppam ñetteel bi mooy ak lewet goo xam ne nag day mujj nekk yeddaa nga nag baaxul mooy koo xam ne képp rek ku dikk rek mën a jaar ci kawam jalgati àqam jàll mu muñ ko rek maanaam mën a ceel ne pat dégg nga wala mooy koo xam ne euh, da koy def ngir njistal maanaam bëgg ñu ne kii aka sedd aka baax ba mu ci mën di doon baaxul waaye lewet goo xam ne dangay ngay lewet ba yambare loolu moom ak yambare la moom baaxul ñoom mu ñu dikkoon tey jii ne la hey sumi sa tubéy te dox ca dem ci mbedd mi sax danga naan patt dem def ko loolu moom baaxul ñeenteel bi nag mooy ah, mooy lewet goo xam ne ah, lewetu rëy la lewetu rëy mooy dangaa mujj nekk koo xam ne nit ki li mu moom sax doog ko jox doog ko jox ngir ne ëgg nañ la ci yow juróomeel bi nag mooy koo xam ne dafay lewet ba mujj nekk am yambar nga xam ne soo ko doon dóor sax du fay ëppal ca lewet ga nit day toll foo xam ne position yi ngay jël pour sauver sa honneur wala défendre sa bopp yooyu du tekki ñàkk leb lewet ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam da daan jël position te moo gën a lewet ñëpp kon lewet nag ba tooy tamit baaxut tooy nga xam ne man ngaa yor kër xale yi góor yi di dugal ay xale yi jigéen nga ne ci yàlla ñu naan paa bi amul problème wala mère bi amul problème ni ki noonu gone yu jigéen yi di dugal ay gone yu góor nga ne patt ñu naan amul problème paa bi du wax dara nga xam ne même say doom sax sañ nañoo dem si mbedd ma jàpp loxo ku leen neex indi ci kër gi bu ñuy yàq xanaa paa bi ne ko wala mère bi dina ah ñooñu amul problème comme ay xar duñ wax de ñu ne ay naandatu lañ xam nañ ni mu demee loolu moom baaxul bépp xeetu lawet boo xam ne li xeeti war may yàlla la mën na caa sosoo rek lawet boobu baaxul mhm. ëppal ci mel ni mbir la baaxul waaye manqué la it ci mel ni la baaxul ëppal baaxul ci mel ni mbir waaye manqué la baaxul ci mel ni mbir yonent bi sallallahu alayhi nee na inna bani aadama xuliqu ala tabaqaatin doomu aadama yi dañ leen bind ci ay tolluwaay yu wuute dañ leen a bind ci ay tolluwaay yu bokkuñu ay melokaan bokkuñu maanaam nit ñi dañoo wuti lépp lañ wute dañoo wutey xel wutey xol wutey yëg-yëg comme niñ wutee jëmm rek nga xam gis kii gàtt turuj kii gudd lool kii nekk ci diggante bi kii yaram wi rëy lool kii yaram wi tuuti lool kii yaram wi yamandaay kii xees ba jaaxal la kii ñuul kukku kii buy dox di dëngalu kii jubal kocc kii def nii noonu yi nag lañu wutee ay xalaat moo tax doomu aadama yi mënuñoo dëkk si jàmm daanaka ndax dañoo wuti yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne dañoo bind ci ak ay daraja yi tolluwut ay tabaxa tabaxa nag mooy ay level ay niveau yàlla nag mooy ki leen di niveauté moo leen di niveauté bañ ku nekk rek dama bëgg ci moom loole mu ne am na ci koo xam ne euh, dafay yeexa mer gaaw a giif maanaam albatiul xadab gaawuta mer tey day gaaw a giif waaye wa minhum sariul xadab am na ñoo xam dañuy gaaw a mer lool sariul fay yéex a giif nag fa tilka bi tilka maanaam bi mooy safaanu bi ñii kii moom gaawuta mer gaawuta mer waaye bu mere day gaaw bàyyi mer ma kii nag moom boo ne ko bankal sa tànk mu mer ba noppi jàpp ko juróom-ñetti fukki guddi du giif loo ko wax mu gis ca boppam mer gaaw gis sa bopp ba noppi da koy jàpp jàpp jàpp jàpp jàpp ba yàgg waaye am na ci nit ñi ñoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee wa inna minhum sariu alxadab batiu lfay am na ñoo xam ne dañuy gaaw mer yéex a giif lool gaaw a mer dégg ba noppi yéex a giif lool waaw bu njëkk bi kon mooy gaawuta mer te di jàpp mer kii nag daa gaaw mer gaaw giif waaw ngeen baax bi daf mel na leneen laa waxoon gaaw a mer gaaw giif gaaw naa mer waaye du jàpp mer deuxième bi def naa dama see juumoon gaaw am na ñu ko mel am na ñoom dañuy gaaw a waaye lan lay saan ñoom la wala fi naan seen xol daa baax moom fi mu toll ni muy gaawee mer noonu lay gaaw a bàyyi kooku mooy koo xam ne dafa gaaw a mer waaye nag du gaaw a bàyyi boobu moom baaxul ñetteel ala wa xayruhum batiul ghadabi sariul fay mooy ñeenteel bi mooy koo xam ne moom batiul ghadab gaawu tamer sariul fay gaaw naa gaaw naa giifit du gaaw a mer te du sa jàpp dara maanaam buy mer moom ku ko merloo rek ñi ko xam dañ naan kii de su meree rek tooñ nañ ko kii nga xam ne du mer ni mu leewatee ni mu leewatee waaye nag day gaaw a bàyyi tamit ndeysaan dana yéex a mer te bu dikkee boo ne ko baal ma rek mu ne la ah man koy fàtte naa ko waaye nag ki yées ci ñoom nag mooy koo xam dafa gaaw a mer lool ba noppi yéex a bàyyi yéex a giif yonent bi salaa sallam daan ne alaa wa inna alxadaba jumratun fi qalbi ibni aadama amma raaytum ila xamrati aynayhi wa intifaaxi awaadijihi awaadijahu faman axassa bishayin faman axassa bishayin min dalika falyulsiq bil ardi sallallahu alayhi wa sallam ak a mën a jàngale ak mën a jàngale yonente bi ne ki yées ci ñoom mooy ko xam day gaaw a mer yéex a diif waaw dama ne merkat dafa mel na ab taal bu ñu taal ci xolub doomu aadama loola waral ngeen di gis nit bu meree bët yi mujj xonq coy ba noppi mu mujj nekk koo xam ne day mel na koy saxaar bët yi xonq coy mel na koy saxaar bon xol baaxul mu ne bu fekkee ne dangaa yëg ne dangaa mer mu ne boo taxawoon naa nga yegg suuf am na ñoo xam ne suñ meree tabarka nañuy mel day day yéeme lool am na ñoo xam bu ñu mel ku leen vidéo woon ba ñu giif nga wan leen kon dañuy xam dañ naan man naka te man nii laa ñaawee hmm. kon hmm. kon mer lu mata moytu la lu mata moytu la alquran nee na fa ida alladi baynaka wa baynahu adaawatun ka annahu waliyun xamim ñu baax ñi day léeg mu am koo xam ne dangay xam ne ak noonoo dox na ci seen diggante waaye nag boo dajee moom dangay jël noonoo nga fële nga jël ko mel na sa mbokk la moo xam ne sax dafay ku baax ci yow loolu nag wa maa yulaqaaha illa alladina ñi nga xam ne ñooy am lool yi mooy dong ñi nga xam ne dañoo muñ wa maa yulaqaaha illa du xadin azim waaye nag borom cër yu mag yi rek ñooy am yooyu ñii sàkku xam-xam it ku ñu wax alxasan albasari dane utlubu alilma wa zayinuhu bilwaqaari walxalim bu ngeen dee sàkku xam-xam na ngeen ko taaralee respecté ak lewet ngeen dee sàkku xam-xam na ko taaralee respecté ak lewet kon nëbbu mer daal lu baax la lewetit lu baax la bokk na ci li nga xam ne noonu la ñuy fajee mer bépp jullit bu góor walla bu jigéen war naa xam ne xolub doomu aadama bi day tawat day feebar comme ni saw yaram di feebaree ngay dem hôpital kon bu sab tawat bu sab xol tawatee dangay dem hôpital ñay faj xol ya ñu faj ko te feebaru xol dafa nëbbu te boroom it du ko gaaw a xam boroom du ko gaaw a xam feebaru xol looloo tax du ci gaaw a jóg ndax da sàgg sàggane yoon bi nga xam ne moom lañuy jaar ba faj ko nag mooy yow nit ki nga xam ne nit nga am loo xam ne jamono bu ne dañ naa la baaxut nga def sa kemtulaay kàttan ba jàngat jukko jooji misaal bi ñu ne la yow dangaa gaaw a mer del jàngat jëmmi je gaaw a mer gi ba foo waroon a meree rek daal di xalaat ne ah lii kat jikko la boo xam ne nee nañ ma dama koo bàyyi dama ko war a bàyyi yow da ngaa siis wala yow da ngaa gaaw a dóor wala yow da ngaa tàng wala yow sa wax dafa sa dafa metti sa waxin daa ñàkk kersa yooyu yëpp nga xam ne yu baaxul la wala da ñàkk war ma ci nit suñ la ko waxee danga naan teg jéem a sàmm wanteeg sa xol jéem bàyyi yooy yi loolu nag yoon niñ ko jaare ñeent la bi si njëkk mooy nit ki mënta ñàkk am ku koy wax maanaam ku koy wax ku koy wax lu mel ne ab sëriñ wala waajur mooy nit ki mënta maanaam nit ki mënta nekk nit complète nit ku koo xam ne euh, koo xam ne day bàyyi jikko yu bon yi lu dul ne dafa am ku koy wax lii baaxut lii baaxut nga xam ne lépp lu bon lu mu gis ci yow rek misaal am na ñoo xam suñu wax dañuy fëññi fëññi di mer rek di mer am ko naa la lii baaxut comportement bi bàyyi ko jikko ji bàyyi ko soo bëggee am nangam da nga bàyyi loolu mënta ñàkk ndey ak bàyyi nag ñoo si jiitu ak ñi nga xam ne ñoom ñoo lay yar di la jàngal waaw ana koo xam ne nag moom soo ne ko lii baaxut mu mujj def ko problème jàppante jaar yow xuloo caag yow yàlla nañu si yàlla musal ñaareel ba mooy nit ki bu mu am xarit bu baax bu am diine koo xam ne ku baax lay doon koo xam ne bu àndee moom daf koy yokk ay jikkoom yu rafet boo àndee moom daf lay yokk ay jikko yu rafet waaye du la xëcc jëmale la mukk ci ay jikko yu ñaaw ñetteel ba mooy fexe ba nit ñi di la liñ lay wax nit ñi liñ lay wax naa la baaxul misaal yow da bari wax ñu naan yow da bari wax yow foo def naa nit ñi loolu ñu lay wax da koy jàpp soo ko jàppee nag da koy jéem a dindi maanaam nit ñi am na benn boroom xam-xam boo xam ne bañ ne ko yow nan nga def ba yaru dane damay def lépp luñ ne baaxul ma jéem koo bàyyi lépp lu ma dégg nit ñi naan baaxul rek ma bàyyi lépp lu ma dégg nit ñi naan baax na rek ma def ko foofu laa jaar ba yaru kon nit ñi liñ lay waxee naa la yow dangaa réew bàyyi réewale wala ñu ne la yow lu tax ngay waxee nii lu tax ngay wax waxeen bu tàng lu tax ngay waxee sa yaay nii bàyyi jikko boobu noonu noonu nga koy toppee ñeenteel bi nag mooy nit ñi ngay jaxasoo saa boo gisee ku nekk sa wet ñu corriger ko ci mel mbir dangay fexe ba yow loolu bu la si kenn corriger sëñ Fallou Abdourahman dangay fexe saa boo nekkee ci nit ñi nga gis keneen koo xam ne dañ naan ko eh bàyyi lii lii baaxul di ko ko tere nga fexe yow ba bu ñu la ko mas a tere waaw ñeent yi ba mujj wax yéen ngi seen téléphone yi rek mooy nga wut ab sëriñ wala sa ndey ak sa baay say waajur di la wax liñ lay wax nag la mat a bàyyi nga bàyyi ko la mat a def nga def ko ñaareel bi mooy nga am xarit bu la gën ëpp la diine di la digal di la tere ñetteel bi mooy nit ñi li ngay faral di dégg ñu naan baaxut baaxut nga bàyyi ko ñeenteel bi mooy nit ñi ngay jaxasoon saa boo gisee ñu wax kenn ci lenn ne kooki jikko bi daa nekk ci moom te jikko boo baaxul nga bàyyi mbokk yi ñu xam ne mer mer dafa mel na takk tàkku safara boo xam ne la muy jur ca ak mujjantalam wala dafa mel na am mbay la moo xam ne la muy ji boo ko jiyee la muy saxal mooy iñaan ak soxor iñaan ak soxor ndax nit ki su meree du bëgg lu dul fayu rek wala defante saa bu nit meree day bëgg a fayu wala mu bëgg a defante hmm. wala mu def loo xam ne après daf koy réccu topp naan baal damaa juumoon damaa meroon xaw ma ko woon lii ak lii laa ak lii yooyu yëpp du lu baax kon tey fii la ñuy yemale waxtaan bi mën naa am um, tey ji incha allah mooy nekk suñu mujjantale waxtaan ci weeru koor gi àjjuma jàmm la ñu tëj yàlla nañ yàlla may dégg ak topp te suñu borom dimbali ñu te dimbali mboolem jaamam wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullah défaut